ngi kay daal di dooree ak ñi nga xamante ñooy uh-huh. waa Walf Quotidien uh-huh. alors euh, Walf Quotidien ñoom def nañ euh, ci seen une uh-huh. euh, autorisation de circuler les fausses notes de l'intérieur bah euh, oui c'est que en réalité que euh, Aliou Ndiaye dafa dafa dafa jëngu parce que dafa gis ni y a beaucoup de trafic. Mm-hmm. Euh, euh, ci ci ci ci ci distribution wu permis de circuler yi. Mm-hmm. donc ça fait que Khayri tu n'as pas besoin de de continuer à te maquiller puisque mm-hmm. tu es toujours aussi belle ça ne sert à rien hein? <laughs> donc forcément. non nee na il faut mu contrôler affaire bi. jël ko moom di ko signer boppam. ku soxla autorisation mhm. de circuler mu mën la ko jox mhm. problème bi moom mooy euh, euh, techniquement nan la ko nar a defee dans la pratique ça va être très compliqué pour ah. lui parce que euh, ki dëkk Oréfondé Mm, wala ki dëkk euh, euh, euh, fële ca ginnaaw Kédougou dëkk Sumulu Bacili boobu nu mu tudd du ko góor gi waxee léegi. kooku Tuyubu dina am problème bu fekkee dafa am une urgence sur Dakar il faut que mu déplacé wu ñëw ba Dakar pour mën a def une demande bind def une demande de de de permis de circuler. Mhm. waaw déjà pour mu jógee foofu ñëw ba fii sax nan la war a def fan lay jaar il faut bien que bu soxlawee mbir mi mu déplacé wu buy déplacé wu normalement déplacement boobu ñu tere. bu euh, loolu euh, déplacement boobu ñu ko tere euh, moom mënu ko permettre mu ñëw fii donc en fait il serait empêché alors qu'est-ce qu'on va faire sur les urgences parce que bu fekkee urgence dafa am nit ki feebar wala mu am benn concours bu mu war def wala mu am un truc hyper important boo xam ne il faut absolument wala un rendez-vous xam ne jëloon na ko il y a mois ba pare dëkk ginnaaw Kédougou euh, toujours ci dëkku Soumboulou euh, euh, Sissoko Sissoko nu mu tudd Soumboulou Bathily parce que en général Sissoko Bathily mm. yooyu noonu yëpp ngi ci biir donc <laughs> déplacement yooyu Fatou mais kooku nana naa def dafa na am problème parce que finalement il faut xool ko signé parce que moom nee na léegi moom mooy signé affaire donc ça va être très compliqué techniquement euh, bu fekkee ni problème dafa am nii il faut pas que ñuy jël. ay décision comme ça un peu en catimini ce n'est pas une bonne idée des situation boo amee wala problème am ñu gis benn faille quelque part dañu war a toog waxtaan réfléchir sur une solution mais pas tout de suite def benn euh, communiqué euh, ne écoute léegi sax yéen ñëpp man wóolatuma leen man maay def mbir mi non il faut nga xool ndax li def wóor na wala déet est-ce que c'est possible techniquement en termes de pratique yow mun nga def euh, de manière à ce que justement Abdoulaye Ali Ngouille Ndiaye a écrit n'est pas une enfin euh, n'a pas de sens puisque du du am du du en termes de pratique du du du mën a parce que ça va pas être difficile bu fekkee ni encore une fois ca àll ba nga dëkk euh, àll ba àll ba man àll ba <laughs> pour mu leer <laughs> mais àll ba en général je pense à la campagne uh-huh. kaw gi rek waaw campagne donc euh, bu fekkee ni foofu nga dëkk nga une urgence à Dakar nga jëloon rendez-vous il y a trois mois ça pourrait être très compliqué parce que déjà nooy def pour déplacer wu ci diggante bu région entre département wala yooyu waaw léegi ñoo nan ngay def ba ñëw bu fekkee da nga force ñëw dañu la jàpp dañu la sanctionner et puis dañu la delluwaat fi nga jógee donc finalement li nga bëgg doo ko am donc ce n'est pas forcément une bonne idée il faudrait que mu réfléchir sur d'autres solutions waxtaan mooy li ma wax rek décision bi waru ko woon jël en catimini dafa waroon réfléchir euh, mais nag fii da ngay waaru quoi da ngay mer rek gis benn affaire ne non écoute lii laay def non il faut pas toog réfléchir mais lan la lan mooy problème bi dégg naan plus de xaw ma ñaata euh, centaine de de de de de permis de circuler lañ doon teg ay dil xaw ma lan ak lan ñii di ko jaay ak yooyu demee y a un problème quelque part déjà fu ma li may njëkkoon mooy kan mooy responsable bi. elles sont où faay failles. responsable bi ma ma ma jéem leen xool. failles yi ma jëm ko euh, euh, euh, réfléchir sur ay solutions commencer man di réfléchir man en tant que ministre de l'intérieur et puis woo samay collaborateurs leur faire des propositions et leur demander ce qu'ils en pensent en ce moment là bu fekkee ni conclure ngeen benn mbir ak confiance en eux effectivement vous pourriez faire un communiqué mais tout de suite comme ça et immédiatement euh, faire une un communiqué et dire que oui de toute façon pouvez pas être au four et au moulin euh, voilà euh, se gratter et puis et puis, et puis en même temps euh, faire la guitare ce n'est pas possible monsieur le ministre donc revoyez un tout petit peu euh, ce communiqué là ah. essayez de l'enlever et puis réfléchissez avec vos collaborateurs et puis trouvez une autre solution beaucoup plus intelligente ah. en termes de pratique parce que forcément il y aurait des déplacements qui se feraient entre le nord et le sud l'est et l'ouest ah. le centre et euh, le reste du Sénégal donc ce n'est pas possible ce que vous avez dit et ce que vous avez écrit dans ce communiqué là essayez assez rapidement de passer à autre chose de manière à ce que les Sénégalais qui sont qui sont qui sont quand même euh, qui qui ont des urgences souvent euh, et qui n'auraient pas le choix de pour ces déplacements pour leurs déplacements euh, forcément auront besoin de ces autorisations là te mën nga leen indil problème euh, dans ces cas-là ay ay opération yoo xam ne am na hôpitaux yoo xam ne amul euh, yi nekk Dakar euh, nekkul nekkul nekkul nekkul nekkul nekkul Tamba mhm. nekkul Oréfondé nekkul nekkul nekkul euh, Ourossogui donc quand ils ont besoin de de de de prendre rendez-vous pour Dakar sur Dakar et puis éventuellement euh, euh, faire quelque chose par rapport à à à leur déplacement ce serait très difficile pour eux parce que bu boobaa di nga leen di nga leen di nga leen tooñ yow donc yow à la base waroo waroo tooñ a faciliter le déplacement des Sénégalais surtout ci wàllum urgence. je trouve que instant bi ñoom euh, ils prennent des décisions en catimini te man si sama xalaat bu gàtt lii tax ñu ñu def loolu xam nga dañuy faral di wax que gouverner c'est prévoir. Mhm. mais man je trouve que ñoom ils n'ont pas prévu li nga xamante ni moo xew moo xew moo xew jamono ji et pourtant booy gouverner da nga war a prévoir possibilité yëpp que ne ah tey tey kat li mën na xew ëllëg la la mën na xew fan yii xamante mais Fatou c'est normal parce que à chaque fois quand je le dis moom on dit oui il répète la même chose. Mm. mais on n'a pas l'Africain en général le Sénégalais en particulier je ne parle pas des sud mm. parce que ay tubaab ñoo leen pendant des années donc xam nañu am tuuti mentalité yenn. pas le même esprit ah, il est noir il est noir foncé du affaire noir couleur affaire état d'esprit la affaire culture dans notre culture on a des blocages on a des facteurs bloquants euh, notamment le sens de l'anticipation anticiper sur éventuellement ce qui pourrait arriver qu'est-ce que décision moi Alioune Sow je dois prendre par rapport ak li xew li xew a un problème de pandémie am na ay déplacements yoo xam ne qu'est-ce qu'on fait ak jël bi ngay dégg ni ay ay ay ay ay ay ay permis de circuler yu ñuy jaay ak yu demee noonu mm-hmm. am parce que mënoon nañ ko verrouiller il faut jamais prendre décision boo koy jël da nga koy jël intelligemment mais aussi cyniquement mm-hmm. nga réfléchir da ngay tous les paramètres possibles et imaginables avant de poser de de passer à l'acte mais ñëw nii rek comme ça benn affaire xew xoolal li ñu defaat ni benn affaire xew na rek ñun non ay jël eh non ce n'est pas comme ça réfléchissez yow d'abord yow yaay ndey mi li ji une solution pour gën éviter yooyu mais boo ci réfléchir ba pare ba teg ko collaborateur éventuellement ay yoo xam ne da nga ko fàtte wala peut-être sóoraale woo ko bu boobaa boo ci véritablement say tes collaborateurs bu fekkee ni ce n'est pas une bonne idée encore une fois erreur et ça va continuer comme ça donc on a un problème de sens de l'anticipation booy fu malade bi mu ñëwee gis ngeen c' pareil mm. on n'anticipe sur rien pare bay jékki-jékki jël téléphone ay nit jaxasoo carte gi parce que n'est pas organisé mm. on n'est pas méthodique l' n'est pas méthodique il n'a pas de méthode il ne se prépare pas Fatou démb bi may tëdd xam toute la journée bu ma de vingt heures mm. xam def te dara mënu ko dindi budul ma accident wala ma dee wala dara jot ma wala ma feebar wala demee mais li ma wax man loolaay def te kenn du ko dindi. Mhm. il faut qu'on fonctionne comme ça li nga war a def Fatou def ko de manière effective. Mhm. mais dafa am lu am Aliou Sow parce que moom euh, Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur ci communiqué bi mu génnee moom raison bi mu joxe bi tax mu arrêté li nga xamante mooy permis de circuler yi. Mhm. c'est pour éviter surplus mais c'est pas vrai li mu wax li mu wax du li mu wax du dëgg ci wax parce que xamul fan la peut-être mën na nekk ci ay biiram. parce que boo sàggane pardonnez ci biir la. Mm. donc daf koy mbubboo comme ni ko Mbaye waxee mm. pour que éventuellement euh, ñu bañ a ñoo xam ne xëy na peut-être ci biir la. te jàpp nañ leen ak yu demee noonu. Mm. mais c'est évident que ni dil bi am ay plus de 300 permis yoo xam ne ay nit ñoo ko yor di ko jaay. xam nga mooy loolu wax exactement dans quel cadre ban situation lañ nekk lan mooy Sénégal problème difficulté de vie de tous les jours le góorgóorlu sénégalais est-ce que yaa ngeen di sóoraale confinement ba su nar couvre-feu à 20 heures qu'est-ce qui se passerait quelles sont les conséquences yi nga après ce confinement là qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir moo tax Bounama dans l'exclusif mi mm-hmm. ah? mais mais feebar mën il a raison Bounama Baldé quand il mooy directeur général lan euh, euh, la mooy euh, le le le kii la. patron de presse la quoi allo Dakar la la kii bi tudd. le le site internet bi un truc qui marche super bien mais mais moom moom d'habitude sax du wax mais dafa bind benn affaire boo xam ne daf ma alerté ce matin. quand il dit à la une de l'exclusif waaw mais voilà lan la wax de crise Macky s'adresse au monde Bounama Fati lui écrit. waaw lan la bind. alors mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci biir ci biir journal. waaw waaw ci nee na à peu près ah ci gàttal nee na moom. moom président Macky Sall joxal gars yi ñoom ñëpp boo bëggee un confinement total c'est possible pour que feebar bi jeex définitivement mais benn solution kese moo am mooy il faut nga jël lekk ak naan jël ko jox képp koo xam ne am na kër ci Sénégal. Mm-hmm. moom la wax nii ah. pourtant loolu wax na dëgg. Mm-hmm. loolu bu ñu ko defee mais wax gi jeex. Mm-hmm. parce que affaire bi day jeex. virus bi day jeex. non waaw mais d'accord mais xam nga bu la fàtte lan la fàtte mooy est-ce que on a les moyens de ça. parce que ce n'est pas possible état mënul dundal tout le Sénégal 15 millions de Sénégalais l'état du Sénégal mu leen dundal il faut que góorgóorlu yi di génn di dem léegi est-ce que c'est possible moom bu naa ma fàttali parce que nee il faut nga jox leen il faut nga jox leen naan il faut bu ñu amee problème nga mun leen sécuriser fi ñu nekk fekk leen fa sécuriser leen mais loolu c'est l'idéal je suis d'accord avec lui quand il dit Bounama mais mooy état du Sénégal il n'a pas les moyens de faire ça koo xam ne mënul jëli 13 euh, ak filles fële à Wuhan en Chine mu mënu leen déplacer Euh, euh, ana ana Ndiaye Dos du làqu na est-ce que ba tey mën nañu ko indi. Mm. donc yooyu yëpp faisant ça fait que on n'est pas dans les conditions euh, financières pour le faire économiquement parlant ñun moo tax ma ne il faut ñu góorgóorlu confinement bi c'est l'idéal il faut qu'on se retrouve mm-hmm. il faut qu'on qu'on se cache dans nos maisons dans nos demeures dans nos tuiles tout ce qu'on veut mais il faudrait qu'on puisse manger aussi il faut ah. ñu lekk di naan mm. parce que buñ ko ça veut dire que mais da ngay indi beneen corps beneen pandémie nga indiwaat beneen corona nga indi corona fan je sais pas moi donc c'est pas possible donc li nga wax dëgg la mais Macky Sall du ko mën a def parce que tout simplement bon je sais pas à moins que ñu dimbali ko mu jël 1000 milliards yi dóor ko pour ñetti weer feebar bi jeex ñu vérifier frontières yi feebar bi définitivement kenn dootu ko am. mën milliards il n'a pas ces moyens là na ko peut-être OMS. je ne sais pas si c'est euh, possible mais il faut aller récupérer l'argent quelque part ou alors ñu jéem a taxale ba yàlla depuis le début de la pandémie sax li nga